asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk si àddina bi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara yéen ko doon laaj kii yàlla def na mu daje ak ki nga xam ne moom la Sénégal yëpp bëggoon na interviewé tey ci sama plateau j'ai le plaisir euh, recevoir kii nga xam ne euh, mun nañu ne lu bëri. bu leeree tey ci boppu sénégalais yi lu bëri bu fekkee ne tax na Sénégal dugguñu ci fitna bi nga xam ne moom lañ doon daw on le doit à cet homme góor gi ma dalal tey ci sama plateau mooy docteur Alfousseynou Gaye Alfousseynou gay mooy euh, médecin bi nga xam ne moo dalal Adji Sarr moo ko recevoir ci guddi googu moo ko consulter moo génnee certificat médical bi nga xam ne ak rapport médical bi nga xam ne moo euh, lëmbee Sénégal ba tey docteur ñu bàyyi la nga nuyonte ak sénégalais yi. jërëjëf euh, Babacar Touré maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, asalaamaaleykum mbokk waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, ci suñu entretien bi mm-hmm. voilà buñ ne docteur Alfousseynou gay ci bés bu mel ni tey ci fan yi ça ça renvoie à quoi ci yow ben tout simplement ci dossier bu Sénégal lépp xam mm-hmm. maanaam hmm? mooy dossier aji sar parce que bu eh, ma bindee rapport bi ba tey mën naa wax ne awma jàmm donc boo nee Alfousseyni Gaye c' le dossier et c' la persécution que je vis mooy lu ma dund daal parce que balaa Adji Sarr mën nañu fàttali am nga lu ñaar wala lu at ci profession bi mën nga ñu fàttali kañ nga commencé pratiquer li nga xam ne mooy euh, médecine gynécologie bi. me euh, euh, ma paree spécialité en euh, fin même pas fin mais ay juillet août 96. Mhm. njëkkoon naa dem Tamba tambakunda hôpital régional Tambacounda waaye yalla dogal euh, finalement wa, hôpital au Oma, hôpital du général de Grand Yoff Ouma mhm. ma daal di dellu si Dakar depuis yaakaar décembre 96 ba léegi hôpital général de Grand décembre 96 hôpital euh, général de Grand Yoff boobu ak léegi kenn mësuloo dégg ci ben coow ba nu yegg ci février 2021 est-ce que euh, février 2021 su may fàttali sa xarit mom moo la est-ce que mën nga ñu fàttali fàttali sénégalais yi naka la démé euh, euh, bu fekkee ne je me rappelle bien euh, ay. Diganti timi ak gee eh, mu ooma ne docteur est ce que Dakar. ma ne ko wala kan moo la woo. Eh, suma xarit bi. Hmm. Pape Samba. Pape Samba Gabi. Gabi avocat avocat moo ma oo est ce que Dakar ma ne ko waaw. est ce que tukkiwuloo fan yi ma ne ah xanaa lu dul jàmm waaye bu rek la Dakar incha allah donc euh, pour l' instant Dakar. donc euh, je te rappelle maa rappelle lay rappelé rappelé waat le xaar appel bi et je daal di communication. est-ce que waxoon mu bëggoon nga tukki est-ce que docteur vous êtes à Dakar oui vous n'envisagez pas bouger non jeex na. nga xam Samba xaw yag nak parce que ci profession bi la donc mënuma fay dugg mhm. ndax euh, je suis accoucheur mhm. bon je préfère pas parler de ça parce que c'est c'est dans le cadre de ce liguey nga daje ak voilà dans le ah. cadre de suma liguey man mhm. et après ci liguey mais ci suma liguey d'abord la ñu mais je préfère pas en parler Quand bu wo on était le 1er.. février 2021 booru timis comme ni nga ko waxee. non après timis après timis waaw ok boobu ak léegi déggatoo ko ba ci ëllëg sa. bi ci ëllëg sa euh, mu ooma ne ma euh, dafa am dañ ma soxla daal. Mhm. donc naa euh, jóg.

tay surtout véhiculé nañu idée bobu niki da nga nekkoon dans la préparation tax bu bokkon nga ci auto bu ñëwoon fofu di tok di xaar aji Sarr kéro pour mu guen euh, suite Spa Beauté est-ce que mën nga ñu leeralal foofu. su ma loxo ci kaamil. Mhm. su ma loxo ci kaamil mus xam problème bi nu mu demee. Mhm. bokk ma ci benn complot bokk ci benn préparation suma kër la tëdd ñu ooma premier jour deuxième jour ma jóg. C'est na loolu avocat c'est un ami mu homme mu ne une personne en danger bon ndëgam avocat il connaît la subtilité les subtilités de la justice moi j'ai peur également en même temps de tomber ci cadre non assistance à une personne. parce que dafa ne nit ku nekk en danger là. ci lu mhm. bon donc laaj naa ko est-ce que c'est légal Non, ne ma non y a pas de souci euh, bon suis un avocat donc euh, Madame..! mais Ce que je veux comprendre ci biir euh, je préfère pas parler de de ça ndax ci procédure la d'accord nga jégal ma lu nekk ci procédure bi. Mhm. bugguma ci dugg. Mhm. waaw lu may bëgg wax daal lu ma wax moo di dund. Mhm. waaw CTO. Ah, ban heure ngeen yegg fële ci hôpital général bu Grand Yoff. guddi woon na nag mais encore une fois. booba booba yow ak Adji Sarr la rek wala yéen ñi ñeent ñeent la. ak euh, non moom mu ne ma. mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi. kan Gabi. oui waaw mu ne ma mu ngi ñëw ci lu mu wax. Mhm. xaw ma mais. Mhm. j'ai l'impression parce que quelque part suñu communication dafa mel ni mu ngi ci oto. Mhm. donc mu ngi daw. Euh, man man mi nga xam ne. mu euh, boole mag euh, Mbaye. Mm-hmm. c'est avec Mbaye que j'ai reçu la fille. Mbaye mooy chauffeur am. non non nu mu ti. ah Sidi Ahmed Mbaye. voilà Mbaye. moom moo la indil xale bu jigéen bi. nga jël ko dugal ko sa oto yóbbu ko CTO. voilà donc même bu fekkee ne dugaloo ci projet bi c'est-à-dire que au moment T bi oto bi taxawee ci fenêtre. Anzor euh, Run bi wetu spa spa beauté yow nekkuloo ci woon. combine bi. Mm-hmm. gàttal combine bi. Mm-hmm. bokkuma ci bokkuloo ci xaw ma ci dara man on m'a appelé en tant que médecin donc ma oh, en tant que médecin en qualité de médecin docteur quand nga xam depuis quand nga soupçonné ni combine la parce que mot combine nga génnee moo complot Sénégal ah là mhm. euh, combine je le retire mhm. parce que xaw ma xaw Deug deug dëgg yalla xawma xaw ma mhm. combine le mot combine je le retire d'accord Mais, bi ñu euh amna ay éléments yo xamné euh si je c'est une personne en danger, ça me paraissait un peu bizarre. Bon, euh, mais je euh, Si je dis le lendemain, euh, il euh, y avait un décès, mm-hmm. pratiquement jusqu'à 18h, 17h, 18h, 17h30, 18h. Euh, tu sais, tu sais, en partie, ligué, la journée liggéey naa 17 h 18 h on était mort de fatigue. Mm-hmm. dañoo nom. Mm-hmm. alors euh, malheureusement ci rédaction euh, maa ngi en ak suma benn jigéen suñu assistante donc il euh, y a eu une faute de frappe qui et des fautes de syntaxe qui sont passées inaperçues. Moi j'ai certificat médical c'est certificat médical voilà mais certificat médical Allez vous bu jigéen bu la présenter. ci ban anam la taxaw ci kuñ la

Euh, Docteur C'est une question de procédure. Mhm. Mais je peux dire que euh, euh, Suma Ham Ham, Suma jar jar, Suma Djangabi, mais ne me qui c'est une personne en détresse. Mhm. Mais ne pas qui c'est pas une personne en détresse, c'est une personne très sereine, mhm. très calme, très posée. Bon, loolu tontu naa ko quoi mu ci biir dossier mais pour Sénégal bi nga a ne amuñu opportunité gis dossier boobu yow sa diggante 17 millions de sénégalais yi la au-delà même des 17 millions de sénégalais l'Afrique est accrochée à cette affaire-là Adji Sarr miñ présenté Kérok ci ban xale bu le la bu rëccoon ci néeg le violence wala du lu mel noonu. Babacar euh, bëgg naa wax waaye euh, la ko euh, moi je suis médecin. j'ai prêté serment Pour lo xamné ne pour le moment. mu ngi ci dossier bi ci procédure bi mënuma ci soré. waaye waaye mhm. euh, lu ma la wax léegi euh, j'étais devant une personne très calme très posée qui n'avait pas qui me donnait pas l'impression d'être en danger et mhm. d'avoir été en danger donc c'est tout ce que je peux dire léegi bi nga jëlee xalé bu jigéen bi ànd mom moom fële nga xamné moy mooy CTO def examen gynécologique bi euh, parce que interprétation yu bari gën nañ ci rapport bobu lan nañu mëne jangaté rapport médical bi surtout. non non non non kérok amul rapport médical parce que dañ mëne ma constater mhm. ma constater ñu laaj ma mëne len mënuma tontu. kon mo la laaj. Euh, <laughs> toujours euh, Gabi. Gabi maître Gabi Sow waaw mu laaj la lan nga lan nga gis si Adji Sarr. voilà euh, ak euh, Mamour Diallo. Mhm. oo nañ ma plusieurs fois d'ailleurs, ailleurs jël naa suma capture d'écran, écran. Mhm. ma traduire par procès verbal de huissier. Mhm. donc maa ngi yore kayit yi et wonoon naa ko doyen des juges. mu ne ma naa ko naa def liggéey boobule. donc liggéey boobule bu ma amee opportunité dinaa ko jibal doyen des juges. Mais euh, je dis non, je ne peux pas répondre à la question parce que l'orthodoxie ne me permet pas de répondre à la question. Hana, nous, ma réquisition. L'orthodoxie ne permettait pas de répondre à euh, Gabi ak ki nga xam Mamour Diallo ñu bëggoon ci guddi gi nga non c'est un luxe, ci un luxe. ci si donc bi nga consulté Adji Sarr ci guddi gi da nga def rap da nga ci note nga denc. voilà ci note denc. Mhm est-ce que goudi gogo encore nga def prélèvement bobu ñuy wax ci guddi googu defloo ben prélèvement. def n'a prélèvement déposé ko laboratoire. mais foofu rek laa mën a ci guddi gi. ci goudi gi ci goudi gi. da nga def ben prélèvement. ben frottis nga denc ko ci labo laboratoire..? précisément. ah écouvillonnage ko laboratoire xaar euh, résultat yi loolu rek laa mën a. ñoom fi ñu làngaaba euh, ñëw na nañu partout. La femme du sperme a été prélevée sur Adissar. Je ne peux pas répondre à la question pour le moment. D'accord. Légui, docteur, nous sommes bâtis à La Journée bobu nga passé ko faut nga xamné moy euh, ci deej bi. Qu'est-ce qui s'est passé sur journée bobu par rapport à ñi nga xamné journée bobu metti won na trop ndax j'ai reçu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'appels. Mm-hmm. Beaucoup d'appels. Je yoré capture bi. Et euh, tout tournait autour d'eux lu nekk ci ma il faut euh, réquisition. il faut réquisition gendarmerie la police. à un moment il y naa euh, maître Sow. Mhm. Gabi ma ne somme. man mhm. je veux rentrer chez moi. Mhm. ma ne ma alors vous me déparé quelque temps la secrétaire suma affaire secrétaire assistante bi ooma ma ne ma ah gars yi ñoo nañ de ma ko ah pour éviter d'être gars yi ñan maanaam gendarme gendarme ci hôpital ba Avec euh, xale mhm. donc euh, avec xale non avec la dame. waaw bon donc Adji Sarr waaw ak Sarr. Mhm. na ma yàlla baal ci ci mhm. donc euh, madame de part pour ne pas la mettre mal à l'aise pour éviter d'appeler un autre médecin ma aussi. aussi. réquisition officier de police judiciaire daf lay poser ay questions daf lay laaj. da nga war a tontu tout, l'humour la laaj précisément pas plus pas moyen da nga war a tontu lu ñu la laaj lola loolu def mhm. peut-être que ce n'était pas parfait mais lola est jéem def. bi bonne heure exactement la gendarmerie est di avec ak Adji Sarr hôpital je rappelle que nous avons doon la ñu réquisition bi. waaw ban waxtu la loolu. Euh, bu fekkee ne juumuma ay entre 17 et 17 h 30. Kérok, jëm 18 h sax. kérok le 3. voilà février. février 2021 2021. que note yi nga jëlone la veille mom nga traduire def ko. Mm, mm. c'est pas luma la wax légui ni la question ne m'est pas posée nan laa gis la veille. Mm-hmm. la question m'a été posée à part veiller examiner x ngeen décrit ñu lu ngeen gis ci mom mm-hmm. c'est clair C'est le présent docteur est-ce la vous xale bu bi est-ce que présenté na la carte d'identité non la carte d'identité non wax rek ci lu est-ce que wax na la kan protagoniste bi kan la jotel. ba ci dara. yow kan nga alors euh, nous mu Nous euh, ma rapport ma déjà ci Euh, gendarme bi d'ailleurs bu jigéen la ma interroger ko ci kanamam. Mhm. lu ma wax yëpp lu ñu waxante yëpp ci kanamam. après ma ànd ak euh, secrétaire assistante bi ñu dugg euh, defal ko quelques examens et puis après bind kayit bi mu bëgg xam lu nekk ci biir kayit bi ma ne ko déedéet. soxna kan ma ko bëgg bi wala gendarme ah bu jigéen bëgg a xam lu nekk ci biir ma ne ko déedéet. Mhm. loolu officier de police judiciaire moo la yónnee. moi je vous je je le je le réponds les dangay dem ci OPJ bi mo ubbi ko wax la lu ci mais euh, ko et si par hasard mo ubbi ko euh, ma ne moi je fais plus de rapport à la gendarmerie parce que euh, à quoi ça servirait. je fais plus et ensuite vous je vous connais pas. je suis gendarme oui mais elle était en tenue en civil plutôt. Hmm, mané ne ko ana sa carte bon mu ma de toute façon je suis gendarme mané ne ko d'accord accord. mais génnewul alors mosuloo présenter ben carte. non alors ñu ñu avancer bu ñu génnee ma gis il y' a deux trois quatre gendarmes qui ont accompagné cette dame mais naan mais attends quatre gendarmes pour un malade ou euh, une dame il y' a quelque chose qui cloche pas ma oo euh, directeur bi mané ko ah jotna fi ben cas de réquisition traité naa euh, la réquisition est dans mon bureau Ouais, ça me semble assez sérieux euh, assez lourd Je me ma ah bon je me ko waaw ok euh, on va suivre ça Tu le ma wax le mhm. le ma wax je peux le prouver parce que sur mon téléphone bon abonnement mhm. donc bu son demee Sonatel mun nañ ma wax kan la oo ban heure laa ko oo ban bés laa ko oo loolu yomb alors ma on suit ça ci ëllëg sa ci gannaaw ëllëg sa la ma jigen mu ne ma jigéen bu nga recevoir ko ah tegede dëgg nag réquisition moom pratiquement dans la semaine on reçoit deux trois parfois quatre de tout hein de tout de tout bord hein Guédiawaye Diamniadio partout euh, même si euh, à la foire mhm. même si euh, Philippe Maguilène Senghor est plus proche mais ils envoient chez nous bon le temps euh, ma est-ce que tout Adji Sarr ma ko oui dis oui. Je dis oui. Je ko waaw non, la tudd de ma ne ah oui. Je hmm, wax ji de mhm. ci le ma wax mom ci la waxé kan la tumal voilà alors à partir de là. ma gis né ci souf ñu may oo. Mhm. suma rakk ya may oo suma and jam ya may oo donc man. commencé réaliser ça veut dire dans la journée à peu près du 5 6. à peu près oui du. journal du guinée du journal bi à ba près voilà 5 mhm. 6 je crois que Ahmed Aïdara moko ñëk wax ci non journal Les Échos journal ah bon ok mm-hmm. donc euh, le matin de bonheur le directeur m'a appelé je suis ma wax ma lu après mu m'a bon après les. docteur docteur taxaw parce que tey am euh, information benn rumeur Je sais ñu information bu ne Avant.. Tout am nga ak ki Ousmane Sonko. Je euh, mm. ngi gis Ousmane Sonko la première fois mm. je lève la main droite et je le jure mm. devant Dieu. Euh, j'ai vu Ousmane Sonko la première fois de ma vie première fois je pense le 25 26 27 juillet il traversait là J'étais chez moi à Kolla, à la maison familiale. Oui, vous passez, mm 2022, hein? Oui, 2022. Élection mhm. ci campagne électorale, ci campagne législative. Mhm. Muy romb taxaw ci ci diggu auto bi, maa ngi suma kër, mu gis ko. La première fois comme ça, jëm. Mhm. Sinon jamais de ma vie. Jàkkaarloo ma Ousmane Sonko. Jamais de ma vie jokkoowuma Ousmane Sonko.

parce que garaaw na lan nga dund ci biir CTO par rapport ak euh, yëf yi. c'est difficile parce que ñëpp bëgg a xam lu xew. ñëpp bëgg a xam lu nekk ci bi dossier bi ñëpp bëgg a xam nu ma ko gisee ñëpp bëgg a xam coow lii wax ji mais man dama ni koo xam ne euh, bu ma xasee bi dugg suma ma liggéey. Euh, lu may ñaan yàlla daal bu ma xëyee lu may ñaan yàlla moo di ma def suma liggéey nu mu waree teg ko ci yoon pare ñibbi suma kër mhm. mhm. mais euh, même ci biir équipe bi ah waaw il paraît que il que dégg naa euh, kenn waxuñu dara xamuñu nu mu demee lan moo xew lu tax bon wax ji bare na daal waaye Euh, je ferme les yeux je ferme les oreilles je réponds à la justice seulement